wax ñu tur bi. Pape Cissé. Euh, responsable autoroute Ila Touba. waaw léegi léegi le président Macky Sall moom la ñuy waxal. moom li ma koy wax mooy. jullit la. nguur day jeex. Abdoulaye Wade dem na. Euh, Abdou Diouf dem na. Senghor dem na te moom day dem. na xool li muy def ci xool yàlla. dafa am ay doomu aadama yoo xam ne terrain yi kese la ñu yaakaar. nga bëgg ñëw faagaagal leen. am na ay doomu aadama yoo xam ne yi seen lépp la boo ko jëlee mooy rey nga leen am ñoo xam ne am nañ fa ay cinq terrain ñi ay six terrain denc ay immigré yu immigré ji woon jëndoon fa ay terrain bàyyi ko fi pour ëllëg bu ñu wàññee koo jaay ko mu nekk seen ressource tey jëlaat na ko non pare ah. pare wuñu pour joxe suñu terrain pare wuñu pour joxe suñu terrain parce que nag autoroute autoroute à péage Ila Touba la wax tey moom moo yor nguur mais suba dafay wàcc te lii boo ko defee du ko jig man maa la ko wax man se président Macky sal lii boo ko defee du la jig parce que ay terrain jàmbur la yu nekk fi xam ñoom la ñu yaakaar kon ñaanuñu leen suñu ay droit la da ngay na fay si Bokutane fay jam ñaajo fay fay fay ay acte administratif fay la ñu suñu xaalis. suñu toogaay fii mooy dañu mooy dañu dañu jóg bi problème bi commencé ba léegi voilà merci beaucoup li xew fi mooy ça fait deux ans ñoom ñi ngi ñuy xaarloo ñu ngi leen ñuy déglu. seet nañu préfet seet nañu gouverneur seet nañu adjoint seet nañu Augustin ñëpp seet nañ leen mooy ñu autoroute la Touba jaar suñu ay tool jaar ci suñu ay kër pour ñu jéem a xool situation bi nan lañ koy gérer woo nañ leen socialement ci waxtaan ak lépp woo leen socialement ci waxtaan ak lépp mais boobu ba léegi mënuñu ñu wax lu leer mais ki ma waxal préfet bi ma mujjee wax ak moom dañu ma terrain yi duñu ko fay parce que domaine national la te moom moo fi nekkal état te bu waxee loolu ñun dañ koy mën a gëm préfet bi bu Thiès moom moo wax loolu. fecc naa nag gouverneur laaj na ma yéen impacté yi ñaata ngeen wax naa ko ne ko dinaa dem dajale la ak ti indil la ko def dajale na ak yëpp yóbbul naa ko boobu ba léegi aussi maa ngi koy déglu mais wax gu ma ci lu leer. lim ma mujjee wax daal mooy jaa la woo woo Ageroute woo préfet ñu jéem a xool nu ñuy gérer situation bi bon actuellement situation bi l'heure est grave que boo seetloo ñoom ñoo leen dugg ci site bi actuellement commencé baliser ay terrain jàmbur. te terrain yi dama bëgg Macky Sall mu déglu bu baax li ma koy wax na moom laa am ak wax man au moins keneen wax ci autorité yi terrain yi muy balisé am na ñoo xam ni dañoo jaay gerte caay di ko dajale ba mën a am njëgu teena jënd fi ay terrain am na ñoo xam ni dañoo amoon ay doom seen yi dañoo amoon ay baay seen baay génn aduna ñu ne xaalis boobu bu ñu ko téyee mën na yàqu ñu jëndal leen ci ay terrain téyele ko pour ëllëg bu ñu màggee te maa ngi déglu sëñ Bass Abdou Khadre ci màggal gi passé ñu ngi koy ziar bu baax di ko na ci situation bi parce que wax na ko neena na leen autoroute bi contour moo ko na ñëw mais dama bëgg dëkk bu mu jaar ngeen fayal man maa ko déglu mais fii mu jaar ci Thiès diggante kër Thiam ba fële fayaguñu fi kenn peñ yi lañ commencé joxe ay avance te eggalee ñu te peñ yi ni ñu ko fayee sax baaxul mais terrain amul ben terrain bu ñu fay. kon ñi ngi appel au président de la République Macky Sall pour mu ñëw gérer situation parce situation la boo xam ni autorité boo dem fi daf naan laa man fii la mën a yem kon moom moo yor voie moom moo ñu mën a dimbali. ñi ngi koy woo nag mu ñëw lijjanti problème bi parce que nag gars yi pare wuñu pour ñàkk seen terrain wala ngeen ne pare yéen pour ñàkk seen terrain fii kenn pareegul pour ñàkk seen i terrain fii bu ñu fi jaaree ëllëg ñun dañuy fay kon nag xam nga lan la moom mooy le président de la république du Sénégal il est notre président de la république moom la ñu am affaire moom la ñuy waxal nañoo fay suñu ay tere fii du fi jaar te fay ñu suñu ay terrain kenn du jóg suñu kaw kenn du ñu politiser def autoroute Ila Touba pour lan pour jóg suñu kaw def autoroute Ila Touba sëñ si di mataay ñu ko koy ziar bu baax Mbàkke nee na ko lépp ku fa ñaaw loru bàyyi ko nañu fay suñu ay terrain nañu fay suñu ay pare na ni tund bi mat nañu huit cent parce que bi ñu defee waaw bu njëkk mille sept cent la bi ñu defee projet de déviation bi ci la nekk huit cent actuellement nag sonn nañu fii autorité bu ñuy waxal amatuñ ko président la ñu amal wax parce que daf dañ seeti ñëpp ba léegi mënuñu am loolu ba nii ma taxee tey suba fekk naa préfet lu ma du ñu ko fay Sébikotane ñoom ñoo ko fay te foofu ay acte administratif la mais AIBD ñoom ñoo ko fay te foofu ay acte administratif la Ageroute dañoo dégager seen responsabilité gis naa léegi ba ma ne ko mais comme yow a yor Ageroute dama bëgg ngeen wax ak man parce que situation bi l'heure est mu ne ma dama nga wax ak préfet bi ma yeggee dañu ma mënuñu fay terrain yi loolu la ñu